suñu mbokk yu baax yi ñëpp ñëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di ziar ñëpp lañ ñoo yónni nag te ndaw moom bu ñu ko yónnee ak waaye bu ñu ko yónnee rek dana ñëw sëriñ Abou Moussa Abdoulaye pour su ma taxaw ni moom la fi yónni ndax ñoo bokk lépp waaye mu dëggal ma ci lépp. fare ba fépp kon boo amee lu mel nii tam ngant su ma woon fere jar na ma nag paas ñëw fekk si ko fere laa xam ne yàlla may na ko ma si jàmm ma ngeen def ci lu ngeen mën ak lu ngeen bis bii nag di ko taxawal di sëñ xam bi su màggal Tuubaa rek a annonce la lépp ci sëñ Tuubaa la tàmbalee ci sëñ Tuubaa la kon inna lazina ila so teew nga fi rek moo nga tey sa sa sa dem xuma baa nga fekk woon sëñ bi gabon yéene tolloo mu xaaral ak sëñ amul tànk kanam rek la ñu ñaan yàlla may ko fan gudd yaa ko taxawee suñu borom may ko yaa ngi ñu fay fekk ci di kilifaam di sëñ Abo di sama kilifa de sant na ko gërëm na ko ñaari kàddu yooyu la wax di wax ma ak ah day fàttali ne bu ma xamoon ne mi ngi fi doy na fi sëkk ndax ñu fi kenn teew rek teew nañ nga fa yaa kon teewal naa fi ñëpp waaye nag ngay ñaan ndax damaa war a delluwaat Tuubaa te lii rek ko ma yëkkati xanaa jox naa am loxo rek yàlla yàlla faj suñu aaju ñun ñëpp lépp loo xam ne na ci yéen xat-xat yi ak melaw jamono ji yàlla nañu seen tubaab dàqal mu te def na ko ba noppi ndax ak ñaanam rek nangu waaw ñaan seen seen laxat nee na ba muy ñaan ba mu geesoo ci gannaaw kenn néew ci gannaaw naa fi amin kooku rek mooy ñaan benn laay dafa wax ne sëñ bi ma ne ko bàtte moom loolu gis ne àdduna ba sosoo ba léegi ñaari ñaan def suñu borom nangu ñaan suñu maam Ibrahima ñaan ak nangoom ñaan xam ne ci ñaan ko nangu lañ ne te sëñ Fall waxoon ku tàbbi ci biir rek waxal amin asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf wàkku kaay yëngal aras ne leen jaajëfati borom Tuuba ku aw yàlla fekk deneen bu ko doon jël ma dem daw ku ma soppal لو الوجود الذي قد زاله حلاوة تفوق العسل ci moom laa ko déggee sëñ Tuubaa nee bi may dugg ci géej gi booba ku néewoon kattan laa waaye naa ba nekk fasu suur wu rekk wu mat sëkk li kunta fil bahri fa sirtu sunduxa inda al ida wa liya wajji sunduxa ci laa ko déggee barki démb soxna mu fi xayri moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xam ne ni taxawal na liggéey bu rëy nag bu muy bëgg a dëgmal waaye seen sëñ Modou dafa am tofeel ci mboolem kuy wax ci sëñ Touba xam ngeen ne ñun mboolem ñiy waxtaan bari na ca ñooñ daggal na leen salaire di leen fay parfaitement te du leen gis te sëñ Touba rek a tax démb teraanga yu dul jeex la fii nag ci ne ma damay ñëw ndax yéen seen mbir ma teg ci loxo sax daf maa war man lii mu def tey rëy na ci ñun lool mbàkki couleur nga bis bi waaye yow sëñ Touba ngay yëg dafa ñëw ci télévision bi xaaju guddi ànd ak sëñ Mamor bi li may wax ci sëñ Mamor daf maa wax ne ma sëñ Mamor dama koo bëgg ma ne ko tax mu ndax ndax li ma bëgg di ko def moom ca la nekk mooy yéen rek yéenay yéenay yitteem. ñoo koy sant bu baax waaye mu am koo xam ne ñun suñu xarit la ginnaaw xarit gi suñu sëriñ la ginnaaw sëriñ gi mu manqué empruntam ci yoonu murit ci communication bi muy sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Ahmadou koo xam dama génnale télévision bi waaye yitte jëlul Cheikh Abdou jox ak boo ko gisee nii muy dox ak la ca dafa wute ma boole ko ci ñi ñu dara jaale bis bii mu am keneen muy soxna Bali Mbakke moom Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou ci sama xarit ñu ànd dem bay ci dal xaraam man ak moom ak Serigne Gànn mi ñu fas kóllëre googu di ko doxal ba tey jii mu bëgg sëñ Tuubaa lool moo waral ñu tànn ko boole ko ci bis bi sëñ Ibrahima Fall Touba Foras kooku sunu diggante xajul ci bis bi. yàlla na ko sëñ Tuubaa fay soxna Aji Diop dafay sunu jigéen nekk ca Amérique jàpp ne kuy wax ci télévision ku nekk moo la war a kuy wax ci sëñ Tuubaa ku ñu boole ko ci gis bii muy koo xam ne kenn la ci nun moom keneen koo xam ne murit saalix la di colonel Ousmane Gueye di DG école police démb ba ma ko xamee ba tey démb laa ko mës a teg bët waaye takkiteer yi mu jiite daf leen la yor ànd ak ñoom ba noppi di leen jàngaloo xasida di leen xiirtal ci sëñ Tuubaa ñu tudde ko ci bis bi ñetti fan après mu jël retraite ma ne ko bii nga jël yaa ngi door a jël fonction jeunes yi ngeen gis ñu daan dar sëñ Modou sa jàng policier yi di jàng xasida moom mee ca la bokk fi ne jataay bi mënoo ko cee xàmmee te muy kilifa jiite leen samay waajur samay kilifa sëñ Alaaji Gay sama nijaay nga ne ànd sañ sëñ Mor Gay kenn desul ñëpp ñëw nañ baas bi ku ne mën na maa tudd nit par nit waaye su ma ko defee suba ci heure bii fi la ñuy fekk ndax ñi fi ñëw ñëpp kenn ko ci nekk kóllëre laa séq ak yow nga ñëw jàmbaari sëñ Tuubaa yi sëñ Abdoulaye Diop Bichir sëñ Saliou Samb sëñ Gànn ñi nga xam ne waxtu wuñ xëyee dégg junniy saaga yoo xam saaga nañ leen te yoon bi rek tax. chakarani hinda jamihi mus xasadu ziyaarati min hindi dem yàlla daf ko sant ci kanam malaayikaam yépp ba malaayika yi di def ay njooxe di ko ziyaare ji Tuuba loolu moo tax jërëjëf Sëriñ Tuuba noonu la gën a war Sëriñ Hamidou xam na ni mënut a tudd ñëpp ci ñi sant waaye boo santee ku tedd gi wane jërëjëfe Sëriñ Tuuba murit yépp murit ñetti murit am dafa am murit rek am murit saadix am murit saadix wala nabil ba nee jërëjëfe Sëriñ Tuuba ñetti murit yépp ñii nga ca faaga ñii nga ca toomar buutaga ñee nga ca waaw ga muy ñett ba ne jërëjëf fàgga quatre-vingt la quatre-vingt ñaari kaaba la ñaari kaas la huit ba huit huit ñaari kaas la plus zéro jërëjëf Serigne Touba murid yëpp ngi ci biir murid bi rek ak murid saadix bi ak murid saadix war naa biir ginnaaw bi mu santee ku tedd ki ba noppi dugal ñéppam ci biir ku nekk da nga fi sa mbokk ak sa ku nekk bëgg a saafanteeg sa mbokk ak sa xarit waaye bu ñu nee Serigne Touba ñépp dañoo war ne ci li ma yaakaar man Serigne Touba nee ma ne lu war ma tax ñu koy takk siir di ko gàttal ndax lépp yi ñëpp la noo bëggoon rek danoo ñuy gën di settantal waxi ko tedd gi borom xam-xam yi ne ñuy gën a settantal waxi ku tedd gi ñi jàng nasaraan ñi jàng nasaraan tey bind ci ku tedd gi nañu jéem a retrouver wu képp ku bind ci ko tedd gi ab téere téere yépp war nañoo mën a daje ko bind taxawal benn collégial boo xamante ni bii dañu koy def benn recueil boo xamante ni bii mu nekk ay tome nekk ay tome ndax itam Serigne Touba yërmandeem daf ko wisaare ci ñéppam kenn ku nekk la nga ci yor fexe ba wisaare ko ñi jàng nasaraan ñi jàng anglais wala espagnol wala français tey dund ko tedd gi tey gëstu ay mbiram nañu ko laabiire ñi ko jàngul c'est important ndax dafa am ñoo xamante ni bii ay murit lañu waaye ay murit saadix lañu waaye ay murit saadix lañu wa nabil te murid boobu la ko tedd kii woon yoon wi uriy lu ci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila moo tax jëwriñ mënti nag sunu yaakaari ëllëg yoosu wut sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amunu lenn lu nu daarloo mën caa teg baaraam lu dul sëriñ Tuubaa